Touba ca kanam mi ngi fàttali jullit ñépp rawatina taalibe yi Serigne Touba yi ñu gën a farlu ci dëkkub Serigne Touba bi gën a taxaw temm ci saafara jafe-jafe yi dëkk bi ndax lu mën a nekk la lu gox sori-sori lu mu ruqi-ruqi lu mu jege-jege si biir Touba tuubaa ca kanam mi ngi koy bàyyi xel te am yéene saafara seeni jafe-jafe ci kaw nag ñu gën a farlu bu baax ci ñaari téeméer yi di ko soñña ci biir kër yi ci quartier yi ci marché yi ci charrette yi ak oto yi ci mbootaay yi ci daayira yi ci jumaa yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bu wér ci dagg reçu 1000 francs yi wala ci 12000 francs yi ku ko mën sax nak nga di si boole carte membre bi képp ku bëgg yondé sa adiya ci Touba ci kanam mën nga télécharger application Touba ci kanam ci Play Store wala Apple Store am na Wave am na Orange Money ba sax sa carte bancaire ak fo mën a nekk ci aduna bi bo bëggee itam mën nga ko jaaralee ci numéro bi 78 544 33 33 am na Wave lépp ngir tuuba gën a jëm ca kanam di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñi nga xam ne yéen a baaxoo di ànd ak groupe de communication bu Touba ca kanam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar. xam ngeen ne fan yi àndoon nañu ak yéen ci naal yi nga xam ne ca kanam naal na ko ci biir dëkk bu sell bi di tuba, muy juróomi raje submersible ci ay yoon yoo xam ne ni c'est des routes à grande circulation Raje bi ci gën a yaatu gën cee gudd def na presque lu toll ci 200 ak 20 centimètres de diamètre ba ci buntu jumaa ji muy ay liggéey yu mucc ayib yu am solo waaye tey ñu ànd ak commission réalisation mbokk yi ñëwaat ci benn projet bu Touba ca kanam nekk di exécuter fii ci Ndamatu ti zone boo xam ne zone bu compliqué la ndax napp bi dafa affecté mbooleem ñi nga xam ne ñoo dëkk ci secteur bi mbokk yi ñoom dafa mel ne sax bu nawet bi jàllee ci li ñuy gën a am ay jafe-jafe ci génn ndox mi nga xam ne mu ngi ci seen biir kër yi tey bale ci suuf Touba ca kanam ànd ak ay ingénieur am ñëw étudier ko xool ko gis ne am na mbedd yoo xam ne bu ñu ko pavé dressé ko mun nañ drainer ndox mi mu dem ci réseau bi waaye it ñu téye surculation bi ba dem bi ak dikk bi mën a yàññ mbokk yi mooy pavé yi ngeen di gis muy lu am solo ndax yéenay tubaa ca kanam ci dëkk bu sell bi di tubaa mooy ñu dox

def liggéey bi nga xam ne nii bu noppee ci pose pavé yi ci lañu ñu toll fii mbokk yi ci ndaamaatu kon dañuy ànd ak yéen rek laaj ingénieur bi Omar Dieng mu expliquer ñu liggéey boo am solo bi nga xam ne nii Touba ca kanam mu ngi koy liggéey fii ci ndaamaatu sëñ bi ñu ngi lay ziare. ñu ngi ziare sëñ yaa ngi am jàmm. alhamdulilah mais macha allah. mel na ne liggéey bi am na solo fii beneen expérience te la ngir soulager population bi zone bi zone bi compliqué la ngeen tànn defar tali bi mais def fi ay pavé di leen sant bu baax si ñëw bi ngeen ñëw fii pour fësal liggéey bi nga xam ne waa commission réalisation ñu ngi koy liggéey si euh, programme opération defar yoon wi comme ni nga ko waxee suñu Cheikh donc euh, suñu yéene mooy fexe ba Touba euh, li si eh, ak Touba eh, ak li ko wër yëpp nekk eh, si environnement bu sain maanaam mbedd yoo xam ne si yu sell la yoo xam ne si dina man dina si mën a jaar di dem di dëkk te du ñu am benn problème ginnaaw bi nga xam ne defar nañ tali ndaamaatu bi fii nag si lañu ñu zone bi tamit zone bu critique la ndax demoon na ba dëkkuwaay nit ñi màggal di tëj seen kër yi di dem feneen di fa màggalee maanaam kenn dëkk kër yu bëri xaw a gent ba léegi sax am na kër yoo xam ni kenn dëkkutu si ba léegi lépp li ko waral mooy problème yoon yu jafe ak euh, ndox mu xaw a bëri ndax boo xoolee fii si ndaamaatu day daanaka si point baawu dëkk bi di Touba te tamit euh, bi ñu defee étude hydrologique hydrologique yi euh, gis nañ que ni ndox yi jóge si boori daa Jolof bi daanaka fii lay dugg see jëm si foofu ñuy wax Kambia ak Kër Ñang voilà ginnaaw loolu xam nga tali moom dafa am ay façon yu bari ay li ñuy wax euh, chaussée rigide ak chaussée souple voilà te bu si nekk ak fan war a def waaw zone bii nga xam ne nag euh, mooy zone Ndaamaatu di zone boo xam ne si euh, dafa presque inondable ndax niveau bi ni mu suufee ak yoonu ndox bi mu doon si lañ tànnee type de chaussée bii ñu fi def muy chaussée rigide en pavé nga xam ni def nañ fi programme nañ fi benn am nañ fi benn programme presque vingt et un mille mètres carrés de pavé euh, fi mu nekk nag ñu ngi si première phase bi si lañ toll nii war a def euh, une première phase de dix mille mètres carrés bu ñu si jógee euh, di def li si des ndànk-ndànk ba kër muy mat incha allah. ñaata mbedd ngeen ceinturé parce que mel na ni fii environnement bi yëpp ngeen bëgg a ceinturé def ko ay ay ay pavé yu mel waaw fi mu nekk daanaka boo dee xool toll na si treize treize mbedd. ak yeneen ñaari mbedd yu xaw a gàtt waaye fi mu nekk liñ njëkk li sumb nii mooy ñeenti mbedd yu gën a am importance mooy yi nga xam ne ñoo si gën a gudd te tamit euh, ñoo am importance parce que day relier tali ba tali donc euh, dina désengorger maanaam dina féexal croisement yi genre tali yooyu mbedd yooyu bu ñu ko defaree. voilà si lañ jëlee initiative defar euh, tali en pavé yoo xam ne si dafa may bordure sur les flancs après am trottoir tamit en pavé moo xam day ñëw ba mbëkk si buntu kër yi. jàpp ngeen ne lii fii combien de temps la liggéey bi di sotti. waaw délai bi c'est pour deux mois et demi xam naa bi ñu démarré léegi presque ay un mois lay war a toll euh, terrassement bi avancé na bu baax ba jiitu sax pavé bi liggéey pavé nag day loo xam si gaawul noonu ndax comme manuel la du doo xam ne si dafay gaaw mais terrassement bi quand même presque ñeenti mbedd yi ñu war a liggéey yëpp daanaka terrassé nañ ko à quatre pour cent donc euh, actuellement pose pavé yi mu ngi si 40 euh, pour cent moom mais mu ngi topp avec un bon rythme xam naa fii ak màggal ki incha allah. am nañu yéene mu mu mat ba ñu man ko ubbi incha allah. kon lii day wane ne mën naa nekk. Mhm. mbedd yi ci Touba yëpp war nañ ko mën a def nii. Mhm. ba dëgg-dëgg ñu tàqale. Mhm. moo xam suñu tali yi. moo xam suñu pavé yi. ak suuf si nga xam ne gàllankoor lay gën a indi. ci li nga xam ne mooy yoon comme ni ñu ko waxee rek rien n'est impossible tout est mathématique dans la vie donc euh, lépp loo gis rek solution ngay wut rek pour mën ko réaliser donc euh, comme ni ñu ko yéenee donc mbedd yi yëpp. am nañ yéene defar ko ba mu mel ni mbedd yi voilà euh, yi nga xam ne day taa ak yi nga xam ne ay jafe-jafe fi fa ndox wër di jaar rek fi ndox wër jaar ak yooyu yëpp bu su nekk am na solution boo xam ne si moo fa adapté te buñ sa yeggee incha allah dañoon xool li nga xam ne moom la méngool ñu euh, euh, étudier ko programmer ko réaliser ko foofu incha allah. rajo yi. Mhm. tali yi. Mhm. pavé yi. Mhm. mais chantier yi yaatu naa. ma wax ci. Touba ca kanam Touba ca kanam waaw yooyu lépp yéen ji moo ko waral rek parce que vraiment comme murid yëpp ku sañoon Touba comme ni ko sëñ bi ñaanee mu mel noonu voilà moo tax yéen ji dafa ëpp maanaam euh, jëf ji looloo tax euh, yaatuwaay beeg sumb yi melni lu bari alors que yéen du du asaka sax yéen a ji dal li am solo aussi mais ay techniciens aussi ñoy nek ci suufu projet bi. Mhm. avant pendant ak après yëpp aussi. voilà lu ñu mënta def lu ñu mënta def tamit ya des études préliminaires voilà laa ji hydraulique étude béton armé voilà dimensionnement soso yi dañ koy def parce que li ngay gis ni ñuy def ni ça fait un an ñu koy étudier étudier nañ ko un an mm. te étude technique bi day jall après étude financière bi ñew voilà nga xam même technicien ñun ingénieur bu ñu d' accordee sax mhm. am na fu muy jaar fo xam bu jaaré finance finance mën nañ d'accord accord mën nañ bañ d'accord d' accord donc y' a un processus ngeen di discuter lu bari ñu di bi lu bari voilà xam euh, nga xayma ko c'est important important voilà phase phase phase phase étude bi moom vraiment dañuy tok def les levées nécessaires mhm. voilà def étude yépp yëpp li ñu war def mhm. bu paré paree euh, proposer ko avec un budget voilà su ko defee ak un délai euh, prévisionnel bu ko defee ñu tranche au niveau du comité directeur balaa ñu koy réaliser. et puis liggéey bi aussi day mujj am euh, drainage naturel des eaux vers le réseau euh, existant. existant voilà c'est ça parce que en fait bi boo xoolee même avant ñu def pavé yi yoonu ndox la woon donc ndox mi daan daw di dem donc lool occasion la boo xam ne si yow boo defar sa tali doo ko doo doo ko

tay groupe de communication bu Touba ca kanam li lañ leen indil ngir wan leen ñaar téeméer yi nga xamné Touba ca kanam mu koy laaj mourid yi ci lu mel la jëm mbokk yi ñaar yu barké la ni mbokk yi ngi leen wax sank te gis ngeen ko lu toll ci juróomi submersible ay de la dernière génération ak jumtukaay yoo xam ne ni jumtukaay yu mucc kaay ak ay techniciens qualifiés nous des axes de route à grande circulation mbokk yi waaye gis ngeen fii ñu tàbbi ci ndaamaatu ñu nekk ci pause pavé ci lu duñ dem bordure di kilomètre et quelques ci hôpitalu bi na ak lu ko ëpp kenn jaaru fii tuba ca kanam moo ñëw defar ko enrobé ko def fi ay trottoir def fi garab def fi éclairage public tey ñu ñëwaat ci beneen secteur di fa def pavé li dafay wane ne ñaari téeméer yi feek mi ngi ñëw nu ngeen bëgg Touba mel ni lu mën a nekk la mbokk yi waaye ñaari million ngi burit lii tuba ca kanam di def su fekkoon ne dana am ñaari milliards par weer xam ngeen ne solution baa ngi ni mbokk yi laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam mbokk yi feek seeni ñaar téeméer téeméeri ngi ñëw ñuy jéem di indi ay saafara ci jafe-jafe yi dëkk bu selli bii di Touba mën naa nekk de ndax impossible n'est pas Serigne Touba impossible n'est pas jëre jërëjëf sëriñ Touba. Touba ca mi ngi fàttali jullit ñépp rawatina taalibe yi Serigne Touba yi ñu gën a farlu ci dëkkub Serigne Touba bi gën a taxaw temm ci saafara jafe-jafe yi dëkk bi ndax lu mën a nekk la lu gox sori-sori lu mu ruqi-ruqi lu mu jege-jege si biir Touba tuubaa ca kanam mi ngi koy bàyyi xel te am yéene saafara seeni jafe-jafe ci kaw nag ñu gën a farlu bu baax ci ñaari téeméer yi di ko soñña ci biir kër yi ci quartier yi ci marché yi ci charrette yi ak oto yi ci mbootaay yi ci daayira yi ci jumaa yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bu wér ci dagg reçu 1000 francs yi wala ci 12000 francs yi ku ko mën sax nak nga di si boole carte membre bi. képp ku bëgg yondé sa adiya ci Touba ci kanam mën nga télécharger application Touba ci kanam ci Play Store wala Apple Store am na Wave am na Orange Money mbaa sax sa carte bancaire ak fo mën Nek, nekk ci aduna bi bo bëggee itam mën nga ko jaaralee ci numéro bi 78 544 33 33 am na Wave. am na orange money lépp ngir tuubaa gëna jëm ca kanam di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool